ne savais pas que les chanteurs religieux étaient euh, aussi beaux. Alors, Tawfekh Baye. Tawfekh Baye. Mohamed Aladio. Mohamed Aladio. Aïda Moubaye. Aïda Moubaye. Aïda Aïda Moubaye. D'accord. Ibrahima Diagne. Ibrahima Diagne. Papa Kara. Papa Kara. Badara Laye Diop. Badara Laye Diop. Et enfin, Pape Faye. Pape Faye. Alors, qui c'est qui a l'enveloppe? pour la catégorie meilleur chanteur religieux de l'année 2020. Meilleur chanteur religieux de l'année Raya Music Awards édition 2020. Des mains de DJ As. 19, pardon. Mohamed Alain Diop. Donc Raya a tenu à lui rendre hommage, à le remercier de la part de tous les Sénégalais pour cet engagement pendant la période Covid. Papa, yo, barke Seydina Muhammad yàlla yàlla yokk say xéewal ay bu tabaaxee nan ko bëggee ne ko dëkkam fu mu dem ñu yabal fa nu koy jam salaaw ku ko noonu du àndam barke Seydina Muhammad bësub yaa Rasulallah jugal taxaw ñu màggal Seydina Muhammad ah kontaan naa xool seen sama doom yi nekk ci plan de ziar yi ñëpp ñaata ñaata ñu kontaan. waaw jërëjëf mooy jégaluwaat bu baax rek di ñaanal fi teew ñëpp ah, nga xam ni ñoo fi jot a jaar te am tawfeex ak ñi ko am ñëpp ñu leen ñaanal tawfeex lii lu rafet la daf gën a encouragé ñu gën a xamaat bu baax lu ñu yor waaw gis naa la nga naan c'est pas leer def na la bien waaye nag dañ koy moderniser gestion nag bien moderne noonu nag waaw tur bi si nag maa koy jox sama mutaale bi. sama mutaale bi laa doon doon déglu sama jigéen sama xarit. merci beaucoup bon La prochaine catégorie, c'est la catégorie clip de l'année. Meilleure vidéo religieuse de l'année. Juste clip de l'année. Clip de l'année. Religieux, c'est après. D'accord. Clip de l'année. Meilleure vidéo de l'année. C'est bon, merci. Merci beaucoup. moom moom moom la ñu jox papa Alioune mais de meilleure vidéo réalisée n'est-ce pas. alors pour cette catégorie. très bien les nominés. d'accord on a Dieyla. Safari. d'accord Viviane. Enzo Yardong. Mm-hmm. Stéphane Kabou. très bien Diao Diop. Ami Collé. Dorès Fagui ak Famara Malo. meilleure vidéo de l'année Raya Music Awards. pour le trophée meilleure vidéo des Rally Music Awards 2020. D'accord. Sixième édition, à Bordeaux-Port-Prince. Meilleure vidéo de l'année, Rally Music Awards, édition 2020. Oh. Stéphane Kabou. Kabou. Stéphane Kabou. Bon, je vais, je, je vais quand même récupérer parce que c'est un proche. Je vais récupérer le trophée pour Stéphane, qui vit hors du Sénégal, certes, mais qui était toujours représenté à chaque fois. Je vais le, à la prochaine catégorie. Si Alors, c'est laquelle qui est Est-ce que la catégorie vidéo Donc, celui qui passé, c'était pour le clip religieux. Est-ce que c'est ça La catégorie tout à l'heure. est-ce que je peux avoir donc, la catégorie meilleure Pas encore, quest reste pas des euh, de l'année. On peut passer à l'artiste de l'année Pas encore. tuju la de. Souleymane da ngay indi sa gémmiñ bi nga wax. da ngay indi sa gémmiñ bi nga wax. on la regarde et après on passe donc autre fait. très bien meilleur tube de la vie. entre ces deux, et j'ai cité Viviane, Bastung, mmh. Sidito, Torbay, Tarambay, mmh. Lachkeita, Mamo. Alors, Mamo. le tube de l'année 2020, les Ryan Music Awards, édition 6. D'accord. Goes to. Tube de l'année. Ryan Music Awards. édition 2020. Ibro Nadio. Kabore Mémonté, Ibro. Oh, Ibro Nadio. Tatu leen ko bu baax a baax a baax a baax. Tatu leen ko. Ñu félicité ko. Félicitations, Ibro. Titre de l'année, Raya, musique Honox. a qu'on mérité. Il y a qu'on mérité, Ibro Nato. Je rappelle, titre bi moom mooy titre bi nga xam ne Rati bu Mumbai Rati bu Mumbai ñu bàyyi leen Sadio Dieng ñaari kàddu waaw d'abord damay nuyu ngeen ma fekk si saal bi di nuyu sama mbokk ak si ah di nuyu suma garaaw ba ko suma teer lii nag moom laa koy delloo ndax lépp moom la moom mooy bëgg ñëpp te ñëpp ko bëgg bii dama koy jël rek delloo ko moom ku ma bëgg a ku ma tàccal ba ko suma teer rek yàlla na sëñ naa ma ko tàcc Tante Bidi Dinogo à Bakou Soumatel, merci et félicitations. Ibro Nado, merci. Bantu. alors la prochaine catégorie. liggéey rek xam naa ne dina liggéey rek. la prochaine catégorie. pour récompenser pardon la meilleure émission radio. radio et la meilleure émission catégorie meilleure émission radio et télé si c'est bon. La catégorie meilleure émission radio et C'est bon, on regarde l'élément. C'est bon. maa rek ma amal day sax Mesdames et messieurs, télé et radio. Je vais juste rappeler les nominés. Raya Music Awards. Alors, on a Deguntan avec Abba. Deguntan, Abba 913. Vous et nous de la 2 TV. Vous et nous de la 2 TV. Holland Titi. Holland Titi. sur Zik FM. Zik Feeling Zik FM. L'église. Et l'église de la RTS. Quelle est la meilleure émission radio télé de 2020 selon les réalités du Cambodge Ali Mangol. Zik Feeling. Chersa. Zik Feeling. Zik Feeling sur Zik FM. Zik Feeling sur Zik FM. Zik Feeling. Merci à ce couple mythique. Merci. De la radio. Ah ouais. Merci Pio, bravo, bravo, bravo, bravo Alima, bravo cher. Les trophées pour l'émission. Merci. Tonton Presse. Waouh. Je vais alors le trophée honneur Cher ne va pas <laughs> merci, merci à tous les deux, la photo. dañ ko jàpp. ñu bàyyi leen ñu sali ci kàddu di leen féliciter tout d'abord ci liggéey bi ba tey ne récompensé leen trophée bi ci liggéey bi ñuy def ah les femmes d'abord Alima jëlal parole dañ sàkk merci beaucoup Pape Ross merci euh, sister ak assistance yëpp. ñu ngi leen di nuyu bu baax di gërëm Souleymane aussi ndax organisation bu mel ni yombul donc gërëm tam ñi nga xam ne ñoo ñu teg ci condition yi nga xam ne mooy tax ñuy mën di jëflante ak askan wi di ci jiital le président Bougane Gueye Dany mi nga xam ne moom mooy PCA bu groupe des médias Sénégal amuñu seen fay ndax ñooñu def li ñu doon merci beaucoup à tout le monde merci suñu famille yi nga xam ne ñoo ñuy encouragé et puis merci beaucoup sama acolyte ndax moom daf ma koy yombal merci beaucoup Cheikh Sarr. jërëjëf Aliou ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp mag yi nuyu bu baax di remercier aussi ki nga xam ne moo taxawal liggéey bu am solo bi ndax lii dafay encouragé nit à ce que mu gën a góorlu donc loo mën rek ko mën déwén bi nag ñu ngi delloo njukkal askan wi ndax ñoom la rajo yi trop mais Zik FM Zik la ñu taamu moo tax tey ñu am lii kon ñu ngi delloo lépp askan wi waaye tamit comme ni Alima waxee suñuy kilifa ak Alima vraiment moom it euh, ñu ngi ko ci félicité ndax jigéen la may jàmbaar mais man trophée bi sama wàll sama soxla laa koy may. sama soxla laa koy may waaye Alima bala may la. donc man bu koy may ku ma jàppale la ku jàppale njaboot bi donc madame Sarr sama wàllu def naa ko. jaajëf merci chef merci Alima merci beaucoup. alors Souleymane va venir remettre deux trophées spéciaux l'un au studio Nekoura Souleymane Souleymane. Freeman. Est-ce que tu peux venir remettre ces deux trophées spéciaux D'accord, nous on enchaîne très deux trophées, comme ça on avec la dernière catégorie, qui est celle de l'artiste de l'année. Suleiman, quels sont ces deux prix spéciaux Toubablon et à Négoa, le studio Négoa, spécialiste des musiques de film et de cinéma. Meilleur clip instructif. Meilleur clip instructif. Famille. Azul Best Family. Pour la deuxième place. D'accord. Très bien. The best family paraît-il au le nom. mais mën nañu leen ko ñëw. Cyprien Sall très rapidement. studio Nicolas pourquoi Nicolas. oui bon comme chaque année chaque année on dañuy primé li nga xam ne mooy studio yi nga xam ne dañuy dañoo ci liggéey que ce soit publicité que ce soit vidéo

Merci à la diaspora, merci. Alors, juste la photo un instant. Très bien. The Best Family est déroulé très rapidement. Numéro D'accord. Je laisse le famille, je le montre. Nous tartinons nous, Bahamarabar, je laisse le famille. deux mille vingt su fekkee seen baat loolu nga xam ne très rapidement titre bi nga xam ne ci biir jël meilleur titre instructif ban vidéo la ah vidéo ëtt bi ah, oh félicitations. kër gi kër gi jeunesse su famille trophée mën ngeen dem bokk ci photo bi mën nañu bokk ci photo bi Souleymane voilà ñoom ñëpp ci ZBS la dem leen taxaw ci kanam voilà xëy na ñëw taxaw bi voilà. meilleure équipe instructive ZBS Family félicitations merci alors vous pouvez parler très rapidement. de l'année. Qui est le religieux de l'année L'élément égalé Chanteur religieux. Le chanteur religieux de l'année. Est-ce que l'élément est prêt Catégorie, le chanteur religieux de l'année. Sous-traité, élément du partenaire. Tu connais l'identité très rapidement On regarde, c'est bon. Très bien. Let's go. C'est bon, Brigitte d'accord su fekkee pareegul en attendant vidéo très bien c'est bon dama si même vidéo bi mënul jàngal mais bon man mën nañu jox les nominés ñi nga xam ne ñoom la ñu nominé woon ci catégorie meilleur chanteur de meilleur chanteur religieux de l'année. Donc la vidéo est prête. D'accord. Buzz, c'est pour l'artiste de l'année La vidéo est OK Alors, bien nous donner les nominés hier. Souleymane. Souleymane, quels sont les nominés Vidéo est par contre, pour le Les nominés pour la catégorie. artiste religieux de l'année. D'accord. Le nominé artiste religieux de l'année, il s'agit de Mohamed Alonso, Papa Gara, Aboubakri San, Ababakar Lai. millions yi les dominés ci Royal Music Awards catégorie meilleur artiste religieux de l'année. Qu'est-ce qu'on a dans l'enveloppe? Dites-nous. Boubacara oh macha allah félicitations papa la photo d'abord merci félicitations Papa Kara ñu bàyyi la nga sànni ci ñaari kàddu. maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp ñu sama mbokk ak si sa mbokk si resta yëpp waaw bu leen ñaanal ñu bañ suñu borom defal la ay xewal mu sa waaw amiin amiin defal ñu ma jël ma sama sama yaay ah amiin bëgg yàlla ci amiin amiin amiin papa merci beaucoup